match et le Sénégal a remporté la victoire sur le Xalane national supporter Yang ngi kofi du monument de la renaissance contenté le andal Andal, ñu jubilé ñu ngi yuuxu ñu ngi di dal concert ou Pape du la yaa ngi noonu supporters yi fi mu ne nii kenn mënu leen a téye xanaa rek dañuy dugg si biir dañuy dugg si biir daal di waxtaan ak ñoom si li nga xamante ne mooy victoire Sénégal bi naka la ñu ko gisee <laughs> Ousmane ñu dugg xool. waaw kenn a ngi nii euh, Ousmane kenn a ngi nii dañu koy jël lekk ngir laaj ko sëñ bi d'abord euh, tur bi naka la. Jean Victor. Euh, naka nga gisee tey bi victoire senegal bi. waaw victoire moom ñu ngi sant yàlla quoi avant tout doo xoolee fii atmosphère bi changé na. ñëpp a ngi fecc ñu ngi fecc fii ñu ngi fecc kon sant yàlla bu baax victoire rafet na trop trop trop ñu ngi leen jaay yéene nañ leen lu raw lii te ñoom tam xam naa yéen lu gën a raw lii kon ñu ngi naka ngeen gisee jeune bi jeu bi tey jeu bi waaw tey moom Sénégal dañ ñëw joué ak consigne dañ ñëw joué ko o oh, Jola yi ngi may yëngal sax o oh. ñu ngi ah, gis nañ jeu bi tactiquement dañu présenté dañu joxante mais deuxième mi-temps ñu ngi doon sant ñoo ñoon la mais bi ñu amee changement bi bi changement bi ñëwee gën équipe bi dafa gën a remobiliser gën a jóg kon ñu ngi sandaat yàlla rek gën a def naaka xam nga ñu lu ñu gën a bëgg mooy coupe bi. yaakaar nga ne coupe bi tey jii fi mu ne nii pare nañ pour jël ko. waaw ma pare man mën naa ne pare nañ mën naa ne pare mais am na équipe yoo xam te yëpp pare nañ comme ku ñëw ba quart de finale beneen phase la léegi ñoom ñëpp dañuy dem toog ku nekk da ngay dem sa ruuxoo nga defaru nga ñëw mais nag après euh, d'après lu nii tey te Ismaïla Sarr bi population am doon xaar te dafa ñëw présent woon na moom lu ko doon xaaree lu ko lu ko doon xaaree dafa ñëw woon ñu ne moom ñëw na te bi mu ñëwee dafa andiwaat beneen dafa vingt trente quarante pour cent si équipe bi équipe gën a tey équipe mën nañu cent pour cent la kap dafa compact tey dafa compact mais nag nañ gën ñaan yàlla rek coupe bi moom xam naa ne li si des ñun ñoo si mën jàpp ñun ñu ne Sénégal nañ gën a ñaan rek ñu suuree. d'accord merci beaucoup. bëgg naa euh, ñu ñëw rek si keneen moom it euh, bokk na defe naa si <laughs> supporters yi waaye kale Ale Casada la la la maye moom tuñ bi tubi naka la. El Hadj

tey yaakaar nga ne yegg nañu demi-finale amaana est-ce que mën nañoo jël coupe bi. non coupe bi moom dañ koy jël incha allah loolu moom dañ koy jël car joueurs yi ñoo ngi joxe lépp pour pour dem kanam quoi coupe bi moom dañ koy jël incha allah. jërëjëf jërëjëf merci. waaw kon yéen ko gisandoo supporter yaa ngi noonu gis ngeen waa Ale Casa ñoo ngi def it ñoom it seen show ñëpp kontaan fi mu ne nii mën nañ sax mënuñoo mënuñoo jël benn avis correctement tellement que euh, supporter yaa ngi jubilé ñu ngi Eu, eu, eu, eu, Nous nous ngi def it nous prestation gagné dans demi-finale Nous avons match demi-finale d'ici là nous continuer à nga euh, concert monument de la renaissance Le Pape Diouf amal Pape Diouf euh, génération consciente concert monument de la renaissance